ay ja bàkk ba jib tribune yéen kay dikk ci ndigaluk sëriñ Muntaxa Mbàkke yéen kay groupe des médias nee na ndigal la jibeen te Tuuba laa la wax jëm ci Ousmane Sonko ngir mu génn ci xiifal gii mu ne xiifal googee si les échos sëriñ Muntaxa nee na ndigal li du leen na lu dul Sonko génn ca daal di koy dokk 24 heures ne lii la xalif bi kon yóbbante conférence des leaders waaw conférence des leaders bu yeewee askan wi l'indépendant yéen kay di ko dëggal nee na leen boo leen demee nee leen Ousmane Sonko maa ko jox yóbbal gi yóbbal googee vox populi nee na ay tàndarma moom la xalif ba kon jox ñoom ay dëmbo Dabo ñoom Habib Sy ak ña sa des xamal leen nekkoon ci yor yor yéene kaay Ousmane Sonko kat dama ko jàppee ni sama doom dalal na ak njabootam yóbbante naa leen tey ji yéen ci boppam laay yóbbante si Ousmane Sonko boo leen demee joxal leen ma ko kon tàndarma gii mu dogee ko xiifalam googee tribune yéene kaay ni yóbbante ak xala de dama ne yóbbante ak xala waaye ndax dinañu mën a kon rek jox Ousmane Sonko tàndarma yooyee ba dina leen bàyyi ñu jox ko ko ndax dinañ a sa sébi xotaan tribune yéene kaay ne rek nag damay laaj rek nag dama ni ndax yóbbante boobee dana yegg waaye ndax Ousmane Sonko dana ko jëfee borom gàtt sa gàtt sa cooki feen ndax dana kon dox xiifalam googee ndax ndigal la ndigal jëfee tribune yéeni kaay damay laaj rek de damay laaj dong laa la wax est-ce que tam xalif bala muy sàkku ci président Macky Sall moom njiitu réew mi dana ko jëfee le témoin yéeni kaay déet foofu dama lay tontu nag dama lay tontu ndax xalif bi ci boppam joxul ndigal njiitu réew mi joxul ndigal président Macky de déedéet nee na jokkoon a moom waxtaan na seex moom ci mbir mi le témoin yéeni kaay ne kaay li mu wax il a précisé toutefois n'être pas ñu xamee ko noonu tribune yéene kaay daal di dikkaat nee na ndax Ousmane Sonko kon dana wéyee ndigal Vox Populi ne loolee la ñëpp di laaj laa la wax Ousmane Sonko ndax dana jëfe ndigalu xalif ba le mandat yéene kaay nee na ndigalu xalif ba la wala rek sàkku teefuk président Macky la ga mu def ca suuf ku ci xam dara na ma wax Habib Sy si Vox Pop nee na nawle daa foote Ousmane Sonko mi sunu nawle la def nañu daal li ñu wax te ba ñu yeggee moom xalif ba la mu ñu xamal moo di li ngeen dox da ngeen ma cee fekk jiitu naa leen ca ko wax ku leen yëpp rek da nga nekkul ay xat ndax lu nekk la ñuy dégg di ko dégg sàkku te ku jàq laa la wax dem seeti leen le regard yéen kaay ne xanaa doo leen xool loolu mooy dëgg laa la wax sëriñ Muntaxa mu baax mi al Muntaxa mu sell mi si ñene laa la wax c'est la fin ah kay xiifal gi nee na Ousmane Sonko xiifal googu laa bëgg nga génn ci nag defal ma lii nga xam ne moom laay sàkku maa la yóbbante tàndarma yii boo leen demee joxal leen ma ko mu jël ca dox xiifalam googee génn ci li mu ne l'indépendant yéen kaay ne Touba lii lay sàkku ci Ousmane Sonko le point nii sa Touba googee ak wàccaayuk màggal gi ndox ma nga xam ne mu nga fay jaabaa jonge lu nekk ñu yekk ko laa la wax onaas ndekete yoo dama ne ndekete député yoo lii tax bu tawee ndox ma du dem du leen lu dul sabotage bu metti ba nga xam ne moo fa am banditisme bu doy waa waa ONAS neen réseau ba ci boppam la ñu saboté flexible ya ñu fa installé woon loolee la ñu daggate laa la wax Le Quotidien yéene kaay na ah xakay dama ne lii rekk nag moo tax saa bu tawee ndox mi du dem sabotage dëgg la fa def jëf ju ñaaw laa la wax la def foofee sa Touba jamono joojee Sud Quotidien nee na état mu ngay accéléré de ñeeña ngay bi accéléré na ne kon 150 ci ay bus la léegi ndaw julliti junni mënees nañu si am am xëy ñu ne deetewaay 12000 passagers waxtu bu nekk daañ dem di dikk 300000 bés bu ne dama ne ani ku man Sud Quotidien nee na yéenay wax de yéenay wax waaye nguurub Sénégal mu ngay liggéey tegu na ca taliba ma nga ca BRT ba di accéléré kaneen kuy accéléré kay ci direct news moo di Mame Boye waa ji delluwul ginnaaw de nee na candidat lay doon dellu ci ginnaaw benn yoon nag direct news samp ay laaj Mame Boye Diao ne kaay leen a topp ci ginnaaw diw waxtaane te fii ñu toll nag da ngeen war a xam ne man moomatuma sama bopp président Macky Sall choix bu mu manti def damay dellu sama base waxtaan ak samay nit ñu xool na dañu koy jëfe am déet bie mu doon Boun Abdallah Dionne Mame Diop Aly Ngouille Ndiaye Abdoulaye Daouda Diallo Amadou Ba Diouf Sarr dama ne ku mu ci manti doon rek damay toog xalaat dinaa dugg sama ruq mën a kan xool nag ëllëg la ma cay doxee ak décision ba ma cay jël Mame Boye Diao ci na ku xam ma ci dëggu laa la wax le point actu nekk nag faaw ñu laaj la nag toogal saasoon fanaanal la mer gu nekkoon ci yow la coowal suuf gi fii ci diwaanu ndakaaru nag loo ñu ciy wax le point actu mooy laaj ba tey de dama ne Mame Boye Diao ani fan la teg nekkoon manees naa doon candidat bu benn bokk yaakaar ani kan mooy wéeruwaayam ani kan moo ko dooleel ndax nag neexul ba neex Mame Boye Diao na muy waxee ni dafay mel ni kenn ko moom moom boppam mu ngay bajantu ñu nekk opposition bi nag ñii nga xam ne ay xarit ngeen Ousmane Sonko ña sa des nga bi yaa ngi ci nguur gi mu ne leen maa assumé ay xarit laa la wax ci bi ba mu neex nag l'évidence yéene kaay ne L'As yéen kay ne li moo tax président Macky ba fii mënagul tànn laaloo candidat Bokk Yaakaar déban daat dëgg ci la ne te fi mu nekk nii xamul nekkoon wari ba dem na këng waxi mag day nam sëgg bëri rek nag yee boo teel a waajal sa mbër sëgg bëri këy bëri jamono ji du kenn ku dul Yoro mi nga xam ne nag tontu na lu mel ni xeme 142 universitaires yi nga xam ne ñoo taxawal coalition nee na yaay dañuy dox ngir lu génne Ousmane ba neex la wax Felwine Sarr lépp yéen kaay ne riposte la tiir groupé la kay dama ne Abdou Karim Fofana moom it jël na wàllam ci xew ma nee voir des intellectuels et professionnels du droit pour la majorité des signataires foulés aux pieds principe de la séparation des pouvoirs nous interpelle Abdou Karim Fofana mooy wax de Abdou Karim Fofana mooy wax nee na ñi nga xam ne nee ay boroom xam-xam ngeen ay boroom xel ngeen ay universitaire fan ngeen nekkoon dama ne fan bu fekkee dafa bañ dama ne fan ngeen nekkoon wax ju réyee xam ngeen Samuel Doe nu ko def askan wa dañu ko tiim di ko dogot dogot yéen intellectuel ba muy wax loolu fan ngeen nekkoon professeur Mouniru Si moom i jël na wàllam ca xew ba nee na ñii waay waay bu leen leen tontu bu leen leen tontu politiquement dañu dem ba amatuñu ndëgër amatuñu fenn fu ñu wéeru te su gémmiñ di nàcc doo wax jàmm waaye nag mënoon nañ xam ne ba ñuy taal université a Lamine Diallo député tekki yàkk na lu mel ni xeme Amadou Ba nee bëggee dégg dëgg de Amadou Ba danger pour le Sénégal danger la laa la wax ni fii ci réewum Sénégal Amadou baaxul ci réew mi de danger la du samay kàddu Mamadou Lamine Diallo mooy ni xam ne ci tribune yéene kaay tribune ba tey ca Fass Boy nee askan wa ña ngay jooy de ña ngay jooy seen néew téeméer ak juróom fukk juróom benn ci ñeneen ñu nga xam ne dañoo mbëkki woon l'observateur dikk na ci lu doy ñoom la ñu teg loxo fekk sa ñoom ñaari milliards faux billets ñaari milliards la wax faux billets uwa la nee nañ boo leen mooy wax de njortees nañu ni kon ay garde corps la ñu benn haute autorité fii ci nguur gi fekk nañu sa ñoom ay ngànnaay ñu jël téye ay carte professionnelle ñu jël ko téye teg nañu leen loxo ba teg loxo laa la wax seen complice ba nga xam ne moo waroon raxas faux billets ya maa nga ca làmb je de tribune sport nee franc laa la wax nii fu mu nekk nii nee na jàkk laa la wax rëg-rëg nee na ko tàppen nga ragal nga taxaw ma jóg saa Cees laa jàkkaarloo sampal ko sama ndënd ñu ne deetawaay mu yootu Gris Bordeaux nee na ñaar ñi ñoo ma tax a jóg waaye yow rëg-rëg yaa gën a xam ne yow tàppen nga laa la wax ñu ne ke en ah, Gris Bordeaux mu ne waaye kooku dafa bëri wax franc daal franchement nag franc franc daal yëg na dooleem kon mu ngoog